waaw dawal youtube nga bindi bind Khelcom Production nga abonné te bés cloche de notification bi mané a jot bép vidéo xel Khelcom Production auzu billah bismillah inna wali Allah wa ma tawfiq ila billah jere jërëjëfe borom jere jërëjëfe borom touba wa jere jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba qadim rasoul ginnaaw bi len siyaar yéen ñep te di len jox nuyul islaam te moy assalamu alaykum wa rahmatullah sey ñaan sëñ muntaka Mbàkke mu jagg fi do teur ba bépp naar bu mu liggéeyal maamam ja fas yéene liggéeyal maam ñu ko tër gi Serigne Touba saa borom dafa ko kàttan ak mën mën ba mu eggale ko bi loolu jàllee ñu ngi ñaan Serigne Abou Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mamadou Fadel Mbacke moom tamit kasaalika nag noonu suñu borom dafa kàttan ak mën mën ba bépp liggéey ba mu fas yéene liggéeyal waajuram ba Cheikh Mamadou Fadel Mbacke suñu borom dafa ko ak mën mën ba mu eggale ko jàmm ñoo ngi siyaar mbokk taal bi yëpp Serigne Sidi ah, sa di am mbégte ak ak cant si laaj yi nga xam ne fas yéene ko xool laaj jëmale ko ci man ngir bisu tey ji jërëjëf. waaw jërëjëf sëriñ bi sang bu tedd bi jërëjëf ci nuyoo bi motale boobu nga xam ne yaatu na lool jërëjëf waaw ginnaaw loolu euh, gis nañ ne comme niñ ko waxee ci commencement bi rek euh, chaque année dañuy gis ne dafa am bis bu rëy boo xam ne dafiy am mu di ak cant nga koy woote. Euh, di si ànd ak ay mbokk taalibe yu bëri bari ñu gis ne bis bu màgg la te sax sa bis bu ñëw rek day gindi jëm kanam léegi nag ñu bëggoon a xam bis boobu lan moo ko waral. waaw jërëjëf sëñ Sidi ah bis bi nag dara wóolu ko loolu ab cant moom dafa war am murit ndax cant moom ñett fa cant am ndax cant bi su jaam bi cant suñ borom ak cant nga xam ne suñ borom moo koy cant jaam bi ak cant gi nga xam ne jaam bi moo koy sant moroom jaamam man nag ma gëm ne am murit moom saa su ne yëngoo ak dara lépp ak cant la mu war kaa di yëkki saa su ne di ko jëmal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu mi nga xam ne moom na yaakaar tey ëllëg ndax moom de defar nañ li ñu war a defar lépp kon di ko cant saa su ne day day day lu ñu war rawat na nag bañ bokkee ci moom bu doon loo xam ni maanaam am dimbal la boo xam te gu jóge ci moom la moo war a bis bi tey ñu jàpp at mu ne ñu jëpp mu cant yoo xam koy jël ko ci moom ah, di ko di di di si di di cant yoo xam yëpp suñu pas-pas ak suñu doole ak suñu xel mu rafet moo xamante ni suñu borom kàttan nañu ko dafa séen ko di si taab di si ànd mbokk taalibe yëpp di si sàkku ngërëm ko tedd gi Serigne Touba mi nga xam ne moom lañ yaakaar loolu rek moo war a bis bi. Mhm. waaw mel ni na sëñ bi euh, tont bi leer na lool macha allah bis bi daal euh, euh, li ko waral si gàttal mooy sant sa maam ja ju tedd ja Serigne Touba ginnaaw loolu nag dañuy laaj. bis bi kañ lañ ko commencé def ak tamit nan la nan la débuté commencement bi lan moo ko waral dañ la see jox ndigal wala da ngaa jékki-jékki sa xel nekk ci nga ne xaaral ma sant Serigne Touba parce que dañoo wax ne euh, ni euh, façon bi ñu mën a sante yàlla bëri na comme ni nooy mbindeef yi bëree nu nekk mën nga ko sante yàlla waaye nag yow nga nga nga jël cant gi nga xam ne da ngay woo mbokk taalibe yëpp ñëpp ñëw ñu fi jàng alxuraan di fi wàcce euh, di fi wàcce alxuraan di fi jàng xasida di fi tudd kalimatullahi la ilaha illallah ñu bëggoon a xam maanaam cinta googu daal nan la ñëwee ci yow ba nga xam ne yaa ngi ko yaa koy feeñal fii si Pikine loolu bëggoon nañ koo xam sax. Ah, jërëjëf si si Ndiédi jërëjëf si laaj bu am solo boobu nga xam ne laaj nga ñu ko ah, wax dëgg yàlla am ci mbégte trop ndax lu may neex la c'est lu may si tontu la ndax ah, ñun mu yoonu murid moom ku ñu xam moom xamee ñu ndigal ndax damay faral di jéggi Cheikh Ibrahima Fall na ko wax naan ndigal moom caabi la bu ëppee eh, du ubbi waaye bu yësee itam du ubbi kon da siy mët sëkk kon lépp looy looy def rek am murid ndigal nga ci war a waaw ba tax na bis bi daa heure bu ñëwee bis bi ñu ko ñëkkee def tamit dañoo dem saaku suñu kilifa saaku suñu digal bañ jox ñu ko ñu soo koo def biñ ko dee def nag ba léegi mën naa wax ne yàgg na yàggul ndax ren mooy ñetteeri édition bi ma demoon si sëñ bi laaj ngoon ci digal ma jox ma ko ñu tëddee ko nag fàttalu Cheikh Mouhamadou Fatou Fatou Mbacké fàttaliku Cheikh Mohamed Fatou Mbacké nañ ko tëddee woon waaye nag cosaan gi nag mooy sant Serigne Touba waaye li si gën a am solo mooy dañuy def saa su ne bis bu ñëwee ñu tànn si si njabootu Cheikh Mohamed Fatou ñeen ñoo xam ne nekkuñu fi ñu daan leen ko amaas waaw ak ñeneen ñoo xam te ne maanaam muy seexu seexu seexu sëriñ bi ñu xool si ñeneen itam tuddee leen ko li si gën a important mooy dañuy dañ koy ubbi arxuraan jàng ay kaami jàng arxuraan jàng ay xëse def ko ay ñaan def ko ay addiya yoo xam dañ koy yokkalee jëmale leen ko ndax wax ñoom loolu rek dañ leen deseel saa su di leen ñaanal dafa di sàkku seen ngërëm moo ñu tax a waaw loolu daal mooy important bis bi li si gën a am solo mooy ñaan yi ñu si def moo si gën a am solo tamit wax dëgg ndigal gu wér dañ si am moo tax saa su ñëwee dañuy dem sàkkuwaat ndigal ne bis bi ñëw na jox ñu si ndigal ndax buñ ko jàppoon tey jii woo suñu kilifa ñu neñu suba suba fomm leen ko dañ koy fomm ndax ñu moom si ndigal rek dañuy dox sa loolu rek moo ñu ñor tamit mhm. waaw jërëjëf sëñ bi ko tont bi leer na lool macha allah waaw faaw na mel ni na leer na bu baax a baax waaw euh, question yi nga xam ne moo ñu jaaxaloon ba ñëw ñu la koy laaj Euh, dañoo bëggoon xam tamit sëñ bi comme que xam nañ ne euh, woykat ba danaan mun jud naal fardu lazi laa yuj ma xo walaa yu sanna wa siwaax yuj ma yu sanna ba tax na euh, yow tamit gis nañ sa cofeel si Sëriñ Tuubaa nu mu mel mhm. gis nañ ne xam-xam tamit lim la jaral gis nañ ko loolu duñ ko natable Euh, ñu bëggoon xam nag yow euh, sa euh, fii nii sa teewaay fii nii si bërëb bi ba nga xam ne yaa ngi fi amal liggéey Serigne Touba yi nga xam ne yaa ngi ko fi feeñal tam am solo ñu bëggoon xam sa mission dëgg dëgg fii nii lan la fii si biir Dakar lan mooy sa mission lan la la sëñ séddale ba nga ba nga xam ne moo la fi indi waaw loolu daal lañ bëggoon xam sëñ bi. jërëjëf sëñ Sidi laaj am na solo lool ah, sama mission moom daanaka liggéeyal ku tedd gi Serigne Touba sa laa koy tuddee ah, donte sax dañoo tàmbalee Dakar rek waaye suñu xal suñu xalaat raw na fépp ci àdduna moo xam ne fépp foo xam te ni eh, suñ kàttan mën na ko suñ doolee suñ doole mate na fa fas yéene nañ fa incha allah dëgg suñu tànk bi keddeen fa Serigne tubaa wala fas yéene fa liggéey Serigne Touba waaw mission bi nag du dara mooy dañuy ay ndaw rek li bis bi nag tey ay taalibe ñoo fi daje ak i soppe ak i xarit ndax àdduna moom ñett fi nekk ñi la sopp ñi la bëgg ñi nga xam ne yàlla da laa boole ak ñoom bis bi ñoom laa koy àndal saa ne ndaw ñi tamit wax dëgg yàlla suñu yittee suñuy xalaat tamit du dara lu parce que man benn objectif donc laa bëgg laa am si àdduna mooy liggéey di Serigne Touba parce que loolu dong ma war leneen lu ma def lu loolu tamit yaakaar naa damay tooñ ndax bu la yàlla defee maanaam maanaam si baaxam dimbal la ñu lay tudd tudd Serigne Touba donte ñun jegewuñu ko sax ay jaam jaamaatu nañu waaye li ñu war a def mooy da nga war a ba nga xam ne maanaam lépp sëñ bi bëgg nga nga nga nga nga nekk ca ndax sëñ bi moom yittem ak lépp leen dong la woon mooy fas yéene dundal islam ba islam du am gàcce lépp lu koy neex wala lépp xam bëgg na ko da nga war a nekk ci quatre tànk yooyu moo tax saa suñ ndaw ñi ñun ñoom fii li ñu fi nekkee mooy di di di di waxtaan Serigne Touba ak laabara Serigne Touba ak di àndi liggéey Serigne Touba ndax man tamit fo bët boobu rek laa am amoo beneen bët boobu bu ma demee ba xam ne man a yow sa bokk ñu pas-pas dañuy dañuy xool leneen ndax olof day faral di wax ne ñu bokk teen ñooy lax soo goj waaw ñi ma àndal liggéey Serigne Touba fii ñëpp maanaam di ko ànd ak ñoom muy soppee xarit yi bokk li ñu bëgg rek muñ ñu koo séddu kon das koy rafetal kon nag loolu lañ ànd ak ñoom mooy liggéey Serigne Touba rek moo ñu fi bàyyi mooy fii ak feneen fépp foo xam te yàlla def na loolu moo ñu loolu mooy suñu njitte waaw na daal dañuy dool di wax di ne te xam ne wax dëgg euh, euh, mooy mooy Serigne bi waaw mooy Serigne wóolu nañ ko yaakaar nañ ko nag sa saa su ñoo ngi sàkku tamit wóolu goo ak yaakaar googu gën a sax waaw jërëjëf kon sëñ bi jërëjëf sant nañ bu baax a baax di ñaan yàlla ñu fekkee ko ay déwén yi déwén suñ borom katnal la yok xewali yi jëru sax ñaan waaye ndaxte gis nañ ne chaque année bis bi day gindi jëm kanam sant nañ bu baax a baax jërëjëf wa rahmatullah nifatin wa ahmadin listajibi bi jaayi jibril astajib suali wa ballighani mablagha arrijali bi jaayi mikaila abli ونبي جل مثل غيس كرما بجاي إسرافيل عبل العصمة ولتكفني أغوال اليوم الغمة بجاي إسرائيل كن لي جميل طول عياتي وكذا بعد الرعيل وجل توسلي لمن يدعو به سعادة الدارين واغفر لي به ولي يجد وللذي دعاني لنزمه بالأمن والردوان وبالسعادة وبالعماية عن جملة الاسواه والإناية وبالنجاة من سؤال وعذاب وسكرات الموت رب والعساب وبالبسارات وبالسرور عند مماتنا وفي النشور وصليا وسلما على النبي وآله مع سياب النشب واغفر لوالدي واغفر لي جميع أخلي وجملة سعاب يا سميع واغفر لكل ذي تعلق بها وأققا سعادتي يا ربي يا ولطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا الأسنى الخدام ربنا وسلينا على النبي وسلم وقد به آجد كل مسلم وسلينا على النبي وسلم وقد به آجد كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي برمتوا واو dawal YouTube nga bind Khelcom Production nga abonné te bés cloche ci notification bi mën a jot bépp vidéo Khelcom Production